dénkaay ri soirée et moo leen di may seen xutba aljuma juma sëriñ Murtada Mbàkke ci Grand sant borom bi nga xam ni moo may jaam ñi période boo xam ni dañ ciy mën a amee njéggal te mbokki fan yooyu ci lañ todd muy fukk yi nga xam ni yàlla da ciy jéggal jaam bu ne di ci yëkkatitam ay dara jaat waaye di ci far ay bàkkaar di ci far ay ñaawteef ñu ngi sant borom boobu nag ci ngëneelam ak rafetalam jëme ci ñun di ñaan xéewal ak jàmm ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu yéen jàmm yàlla yi nañ xam ne ñun ñi ngi ci jeexitalu ramadaan loo xam ne da nga ne woon fanweer la ba mujj nga jeexal ñaari fukk yépp mu des benn fukk kon daanaka ñi ngi ci jeexitalu ramadaan mubaarak weer woo xam ni mbokk yi maanaam boo ci defee la day yor tuyaabay farata ak farata ni mu rëy boo ci defee naafila day yor tuyaabay farata waaye weer la woo xamante ne nii ki ci def farata day am tuyaabay juróom ñaar fukki farata maanaam sa tisbaar gi nga julli ci weeru koor day remplacer juróom ñaar fukki tisbaar yoo julli woon ci weneen weer wudul weeru koor mbokk yi fii weer la woo xamante ni jëf def ci jëf ci génn guddi daf ci remplacer tuyaabay ku jëf ci junni guddi junniy weer boobu junniy weer nga jëf ci génn guddi googu maanaam muy laylatul xadar nga am ci tuyaabay ku jëf ci junniy junniy weer yéen jullit bu ñu xoolee suñu ginnaaw rek ñi ngi doon séentu weeru koor ñu ngi ko doon séentu naan weer wi léegi mu ñëw weer wi léegi mu ñëw waaye tey jii ñi ngi xaar jeexital weer wi ak demam kon war nañoo xool nag suñu bopp ginnaaw weer woowu dugg nañ ci lu baree bari mi ngi bëgg a dem war nañoo xool ak suñu bopp njëkk ñuy dugg weeru koor su ak nan lañ melaat biñ duggee ci weeru koor gi nan lañ melaat ndax suñuy jëf soppeeku na ndax suñuy jikko gën naa rafet ndax sunu doxalin gën naa jub ndax war yi ñu doon war ñu ngi koy bàyyi ndax jëflante yu ñaaw yi ñu doon def ñu ngi koy jëflante ñu ngi koy bàyyi ndax maanaam négligé gi ñu daan négligé jaamu yàlla ak di ci tàyyeel ñu ngi koy bàyyi suñu xoolee loolu day mbokk yi gis ne suñu jikko gën naa rafet mbokk yi suñu suñu doxalin gën naa jub mbokk yi suñu bëgg lu baax gën naa yokk suñu bor suñu bañ lu bon gën naa yokk nañ xam ni ñu ngi jariñu bu baax ci weeru koor gi waaye su fekkee loolu de yëguñu ko fenn yëguñu fenn fu ñu gën a bëggee lu baax waaye yëguñu fenn fu ñu gën a bañ fu ñu gën a bañe lu bon yëguñu fenn fu ñu moytoo lu bon tey jëf lu baax na nga xam ne booba day njariñu weeru koor dañoo romb waaye dëgg-dëgg jariñu wuñ ca ndax sëñ Tuubaa wax na ni bëri waa na kuy wooroon mbooloo mi te du ko ñeel ca weer wee woor wa lu dul xiif ak mar dong la ca yam yàlla nañ ci yàlla musal te léegi mbokk yi ku xool ci weer wi da ngay xol ne mag ñi day sunu sunu wa sunu kilifa yu bax yi commencé ci yon sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ay sahaba suma commencé ci salafu salih tabi'uni salafu salih ñëw ba ci sunu serigne su tedd sii nga xamne lu ne lañ defal lislaam ba ci ñi ñu jamonoonteel ko ci gis fukki fan yi mujj ci wéru ko day tëju ñun la lu muy def ñun la day i'tikaf day tëju ci jàkka ja di jaamu yàlla guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg amatul wañina nelaw ya wañina soxla ya léppam yàlla la loolu mooy intikaaf muy sunna soo xam ne Seydina Muhammad da ko doon def ak ay saxaabam sunu kilifa yu baax yi ñëpp ni ko doon ko def bu baax a baax Sëriñ Tuubaa ku nekk dégg na intikaafam boobu mu defoon. kon ñu xam ne sunna su rëy la kon ñun nag contraire ba la ñuy def weeru koor wi day gën a jeex ñuy gën a daw jàkka yi weer wi koor wi day gën a jeex fukki fan yu mujj yi daanaka jàkka yëpp ay vide jàkka ju daan am ñet ñeenti sàppe juróomi sàppe boo demee benn sàppe ba du mat fu fu mbooloo doon daje di jaamu yàlla boo demee mbooloo maa ngay commencé ronqat di vide di vide kon ñun fa ñu waroon a gën a suñu laxasaay ndekete foofa la ñuy tekkee suñu laxasaay foofa la ñuy bàyyeekoo te mbokk yi nañ xam ne fukki fan yu mujj ci weeru koor lépp a ci laylatul xadar gii ñuy wër nga xam ne moo gën junni weer yonent bi saasam dafa ngeen ko làmbatu ci fukki fan yu mujj yooyu ba fukki yu mujj yooyu ñëpp dañ koy borom nit yàlla yi dañ koy jàppee laylatul xadar bis bu ne dañ ciy dañ ciy fanaane jaamu yàlla yendoo cee jaamu yàlla nekk ci sellal ñun nak fukki fan yu mujj yooyu ca la ñuy tekki suñuy laxasaay daanaka koor gi dootuñu ko sax yëgati dana ci sax am ñoo xam ni sax ah dañuy sax bar daanaka bàyyeeku ci lépp dootuñu demati ca jàkka dañ doon dem dootuñu naafile jeeti doot yu bari yiñ doon def ci lu baax dañ koy kon loolu mbokk yi nañ xam ah yàq sa jëf la nañ xam ni tam mel ni ku jub fa ngay jariñoo wàññeeku kon nañ xam ni mbokk yi jëfi jullit day jeex maanaam jëfi jullit day jeex ginnaaw bu faatoo du jeex lu dafa weeru koor moom day jeex mais jëfi jullit mbokk yi du jeex lu dafa faatu képp ko xam nag yàlla ngay jaamu na nga xam ne bis bu weeru koor gi jeexee tam na nga xam ne mi nga doon jaamu mu ngi fi te lam bëggoon ci weeru koor gi moom la bëgg bu weeru koor bi jeexee bokk na ci nag ñu wane ni sa weeru koor nangu na sa koor yàlla nangu na ko mooy ngay def lu baax ginnaaw bi weeru koor gi jeexee yow mi xam ne weeru koor suñ borom mi ngi lay xool weeru koor ba tax ngay góorgóorlu mu sant la ay tuya ay jaamu yàlla nga ciy góorgóorlu na nga xamne li tax ngay fàtte loola bi wéru koor gi jeexee yow mi xamne tam suñ borom da am lu mu ci yow ci julli juróom ca mbolo ya ca wéru koor nga gor góorgóorlu tam li tax ngay réere loola bi wéru koor gi jeexee mel ni suñ borom daf ko yamale won ci wéru koor bi wéru koor gi jeexee mu bayiko suñ borom day lamu wax moy da nga jaamu yalla ba faatu dikkel la waye amul période buñ koy jaamu ak période buñ ko dul buñ ko dul jaam kon jaamu yalla yi nañ xamne suñ borom day dafa yonal ci tëj cay koor wu tedd wi benn sarax bu ñuy génne boo xamante ni azakay mbu dum koor lañu koy tudde ngir mu laabal ci woor ci rëcc-rëcc yi nga xam ne daloon na ko waaye mu doon ñam neel miskin yi nga xamante ni dañuy mën a faj seeni aajo ci bisu korite boobu yàlla def ko muy xéewal ngir ñoom waaye nga di ci sant yàlla tam ci jëpp dëppale gim la dëppale dimbali gim la dimbali ba nga woor weeru koor gi ba mu jeex kon nag war na ku nekk jéem a fexe waajal loola génne ko muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen préparé mburum koor moomu génn ko waaye ñu bari ñu ngi préparé colu julli gi dalli julli gi lépp julli gi waaye mburum koor moom tam nañ ko boole ci ñiy préparé donte loolu tam ci sunna nii la bokk mooy sol yére bu bees dem ci jullikaay ba sunna yi la bokk waaye itam génne mburum koor tam dafa nekk war warugar ndax mooy laabal rëcc rëcc yi la daloon ci koor gi te it tax am na xadis bu naan yàlla day wékk diggante koor gi diggante asamaan ak suuf day mel ni du mën a dem la koy puus mu dem mooy nga génne azakay mburum koor moomu dañu nag ma ngay war jullit bi ginnaaw bu jant bi sowee ci bisu it bu ñu nee suba la it bu jant bi sowee foofu la lay ware ñenn ñi di dee deet bu jant bi fenkee ci bisu it gi foofu lay ware ci yow moo tax euh, ñi wax ne bu jant bi sowee lay war am na ñu wax loolu am na ñu ni déedéet bu jant bi fenkee la lay doog a war am na tamit ñu wax ni sax mën nga koo génnee bi benn bés benn bés lu jiitu julli gi am na sax ñu wax ay bés yu bari waaye boo xoolee illa ji tax ñuy génne lu mburum koor boo xoolee di nga xam ni génne ko ci buñ nee suba la julli gi wala bisu julli gi moo génn ndax yonent bi salaasam dafa ni lu nekk da ngay xool illa ji tax ñu koy génne yonent bi salaasam dafa ni azakay mburum koor dañ koy génne ngir ñu maanaam koomal fo mis masaakin yi nga xam ne yalwaan lañ daan dunde ñu koomal leen ba ñu man bis boobu ñu mën a feetu ni ñëpp ba du ñu yalwaan kenn loolu mooy illa ji tax ñuy génne mburum koor kon illa jooju boo génnee juróomi fan jox ko miskin mi lekk na ko balaa booboo ñëw kon bu booba ñëwee la taxoon ñu koy jox dootul amati mooy day yalwaani kon kon day yalwaani kon foofu boo mbir mu nekk rek da ngay xool illa ja tax illa ja tax mooy mu bañ a yalwaani kon bañ a yalwaani nag mooy da nga koy jox ci waxtu yi mu ko soxlaa boo kuñ tey la jox rek dana ko jëfandikoo ba bu waxtu yalwaan jotee dootu ko teemu mu yalwaane dana yalwaane beneen ba ca des tamit yow mi nga xam ni da am ceeb ci sa kër wala dugub ci sa kër di ko génne baax na mën nga koo génne ceeb ci sa kër wala nga dugub ci sa kër waaye yow mi nga xam da ngay génne poos sa xaalis dem jëndi man dama doon gis ne kat joxoon ki nga koy jox xaalis ba day gën fuuf ci moom nga dem di ko jëndi ceeb di ko jox ndax kat waa ji boo ko joxee 50 kilo ceeb mbuurum koor day dem jaay 50 kilo ceeb ba ndax bis booba du togg ceeb bis booba mom miskin la nak amul waye dina tok da bëgg di tok li ñepp di domam da fay sol complète ni ñepp doomi ñepp di sol complète day jëndi dal, ni domi ñepp di dal. dal fu ko yaakaar ci nit ñi légui nak nga jox ko ceeb ak dugub ba ba kërëm fess del ak ceeb ak dugub du té day genn wanter ceeb beeg dugub bi bu jarul mu dem yalwani lañ ko doon té lañ ko doon jox ngir mu baña yalwani day parce que ndax la soxla ceeb bi mënu ko régler lam soxla dugub ji mënu ko régler lam soxla ci bis bobu xaaliss ko mëna régler moy jënd ndawal togg ni ñepp kër soppeku ak solal doomam ay yére ne ñëpp moom it sol yi yére ne ñëpp bu ko manee am kon loolu lu ko man xaalis kon nag boo jëlee ceeb bi di ko jënd ji ca bikit ba jox ko xaalisam mu jënd lu mu neex lu ko neex loolu boobaa day tax la taxoon ñuy génne azakay mburum koor nga mën a a ko joxee 25000 njëgub saaku keneen jox ko 25000 muy 50000 miskin mu daan xëy di yalwaan nga xam ne bu neexee ba neexee 10000 ngay am wala 5000 ñu xëy kooku mën ngaa bañ a yalwaani bu boobaa moom yaakaar naa mën ngaa bañ a yalwaani te ni li ñeen ñi am alal def seen kër di ko mën a def ci sa kër kon nañ xam ne bis mburum koor moomu dana war nit ki nan lay toll nag mais saa lay toll ñu bari dañ koy jaawaleeg muddum koor ak maanaam mudd bi ñuy joxe ak saa dañ koy jaawale muddu mooy ñaari loxo yu fees comme ki nga xam daa màggat ba munta woor kooku muddu lay joxe mooy ñaari loxo yu fees ak dugub wala ceeb ba mu fees koo xam ne njóolul gàttul digg bi nit mu dibb loxoom ceeb ak dugub ba mu fees mu sotti ko ci barab loolu mooy mudd loolu ki nga xam ni mënta woor te mënta fay ndax dafa feebar wala mag la kooku loolu lay joxe ah, ki nga xam ne nag mbuurum koor nag ñeent ci yooyu ngay joxe ñeentam mooy ñeenti mudd ngay joxe mooy sa ñaari loxo yow mi njooloo gàttoo digg bi nit sa ñaari loxo nga dugal ko ci ceeb wala dugub ba mu fees nga sotti def ko ba mu ñeenti yoon loolu ngay joxe loolu nag bu ñu ko nit ñi nattee dañuy gis ne li muy romb 2 kilos bariwul ñu bari wax 2 kilos 500 boo ko defee day mat sëkk waaye 2 kilos yi rek mat sëkk ndax ñee ku gudd ku njoolu gàttu bu bàyyee ci loxoom ceeb ñaaram ba mu fees def ko ba mu yoon boo ko nattoon du ëpp 2 kilos dopp deekile wala bu ko dee ëpp tuuti la koy ëpp kon loolu mooy tolluwaay bi ñu koy génn na ci li ëpp ci li waa dëkk bi di dunde kon war na nag ci nit ki mu génn ko njëkk jant bi di so maanaam bu jant bi sowee rek mën na koo génne ci bisu it gi waaye am na ñu wax ne nag dangay ngay xaar ba jant bi fenk ci bisu it gi nga doo ko génne ndax képp ku ko génne njëkk ñu julli am nga mburum koor waaye koo xam ne yeexe nga koo génne donte natt nga ko ba pare joxu ko ko ko moom wala xaalis bi jël nga ko waaye joxu ko ko moom ba bis ba ñu julli ji ba ñëw na nga xam ne yow boo ko joxee saraxe ngay am waaye dootoo am mbuurum koor kon nañ ci góorgóor bu baax a baax ñaan suñu borom mu nangu suñu koor nangu suñuy jaamu yàlla te di laqal ñu ko foo xam ni du yàq du ca egg te sàmm ñu sàmm sunu njaboot rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa gina adab annar rabbana la tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab طويل لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تضر بنا خبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله والتف بنا وقونا وكن وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم عباد الله قوموا إلى صلاة يرحمكم الله